rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim lu dul ndigal amul njariñ tegab xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba faf njariñ jox ko toppul ndigalam kem loo defal nag sab sëriñ am lu na toll ci njariñ loo defalul nag sab sëriñ boo ko bëggee doo am ab dara tak ñàkkul dara waaye ku saytuwul dara du am fa njaa yam ma dara lii mata xam gëm ku jug ba dem fi taratang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 xamal ni kat di jox lu dul li ngay jëf ak a wax ak dëgg rek a am xorom aouzu billahi min ashaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallama ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi tawi ridwaani wa tamkin ixwanina alkiram wa aqawaatina alkarimat nuxayikum jamian bi atyabi taxiya min altaxiyat alislaamiyati almubaraka almalufa al aniqa wa hiya alsalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa baadu uinu lakum bi ann qalbana mamluun bilfaraxi wassurur li haadihi aljalsa alislaamiyati alaniqa wa yuclin aydan alyowm alazim almuqbil allati ibtadaahu aseyqu Masamba Loum fi sahri ramadan almubarak wa yuwaafiq fi ihdaa ashara yowman fi haati sahri almubarak wa yakun aydan fi sahri afril yuqaal fi sahri afril yuqaal yaani ihda asara yowman wa yu'lin aydan jamia ummati sayidina muhammadin xaasatan almuridin wa yuqaddim aydan fi daawa cheykhahu wa wasilatahu sëriñ cerno kan ibnu sëriñ xawsu kan wa baad aydan yulin jamia awlaadihi alkarim fi daarukan wa yulin aydan jamia jiraanihi fi haasihi alxayi almubaarak idan nadoo kulluhum jamian fi nadoo kulluhum jamian fi lyowm alcasiim almuqbil allati yakun Euh, shukran li sayxi maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin idan nad'u kulluhum jami'an fi yawmil aziimil muqbil incha allah fi haadha sahri ramadaanil mubaarak incha allah wa yad'u wa nad'u wa nad'u wa nad'u lanaa jami'an aw euh, wa euh, natlub minkum jami'an an yahduru fi haadhihil yawmil aziimil muqbil incha allah naduhum kulluhum jami'an wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu barke borom Touba alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëfati borom Touba waltu kamil xaq di wa ilmi wa sa'yi war fa'il yawma kullaha yaa mooy ni yàlla nu ko Serigne Touba doon lee defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ummatu seyduna muhammad bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ngeen ngaa rafetum nuyu di leen nuyu ngeen ngaa teddum nuyu di leen nuyu ci turu sunu wasila sunu sang sunu soppe sunu lépp Cheikh Massamba Loum xubbul xaddiim di ko ñaanal Serigne Touba dolli kàttanam waaye dolli ay wéram ba liggéey bi nga xam ne am na ko yéene liggéeyal borom Touba mu def ko ni mu ko bëggee ànd mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp njabootu Serigne Touba gi yëpp nag mooy njabootu lislaam bi yëpp sëriñ bi day woote kàddu day woote bisub cant waaye bisub sargal bisub ndokkeel maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Baabul Muridina nga xam ne damay faral di wax ne code secret bëgg borom Touba moom mot de bi sawroo ko trouvé Serigne Touba dafa wax ne sa sa Cheikh Ibrahima Fall dafa am lu ne fi man kenn xamu ko Cheikh Ibrahima Fall fexe ba xam ko ma jàpp ne neexit wi dina tax du ko xamal ku ne Cheikh Ibrahima Fall fexe ba ñëpp xam ko kon Cheikh Ibrahima Fall moom ñëpp ko ameel ak cofeel waaye ñëpp ko ameel njukkal ñépp ko war a sant ngir dey moo tax ba naat gi rëccul sëriñ bi nag fu mu toll sàlloo saxoo sant boroom tubaa waaye njukkal maam Cheikh Ibrahima Fall moo waral boo ñëwee ci makkaan mu mu ne mooy ci daara ji fii nii mu féete di kër sëriñ tubaa fii ci makkaanam di këram ci Mbàkke Bari ak makkaan mu mën a ne rek xasida yi borom Touba yi di walwali tur yàlla wi di walwali ndax loolu ci lañuy ñuy ci la loolu ci la ñuy toqantal bëgg yaatal liggéeyu borom tubaa bëgg dimbali mbindeef yëpp moo waral mu jël ak cant goo xam ne da ciy sant maam si Ibrahima Fall waaye di ci ñaanal Serigne Thierno kan di wasilaam bis bi nag dafa dëppook bis ndax ñaar fukki fan bisub dibeer la woon ca Mbàkke Kajoor la mbir ma wóor la Cheikh Ibrahima Fall ñëwoon ca Mbàkke Kajoor jébbalu ci borom Tuubaa bis boobu nag moo waral yoonu murit ndam lu rëy li ñu am moo waral yoonu murit médaille yi ñu am waaye moo waral yoonu murit fawxa bépp yoon bu fi nekk yoon boo xamante ni yoonu lislaam la bis boobu de moo waral tool bi lislaam bi booyul ndax de Cheikh Ibrahima Fall bi mu ñëwee dafa fekk ñëpp di goye goyelu ba yooy Cheikh Ibrahima Fall bi mu ñëwee dafa fekk yëf yi sori kaw lool te ñor te ngelaw wàcciwu ko Cheikh Ibrahima Fall bi mu ñëwee jot kaw lool te mën a yëg te am taxawaay loolu mooy lan li la ci borom tubaa kenn jotu ko Cheikh Ibrahima Fall bi mu ko jotlee wàcc ko ci suuf ñi nga xam ne dañu màcc màcc ñi njàmbaan njàmbaan loolu mooy lan njariñ li nga xam ne moo ne woon ci borom tubaa te kenn mënu ca woon a jot Cheikh Ibrahima Fall moom la rotal ñëpp jariñu ci kon nag sëriñ bi bu jëlee guddi guy tàbbal ko ci guddi gi nga xam ne moo dimbali mbindeef yëpp muy bis bi mi sant maam Cheikh Ibrahima Fall di ci ñaanal sëriñ Thierno Kane di ci jàng xësiday borom tubaa yi woo ñi nga xam ne dañ koy yëkkati te mu safe ndax wasal la yomb na lool waaye mu sàlli safe tab bi ci xoli murid yi di di di di di yokk seen cofeel ci borom tubaa loolu yombul loole nag sëñ tubaa daa am ñu mu ko jagleel ndax bi mu bindee ba pare dafa tànn ñoo xam ne dañu koy yëkkati muy tàbbi ci xoli murid yi tànn ñoo xam ne da koy dur sëriñ bi nag di ci woo ñi nga xam ne dañuy yëkkati xasidee borom Tuubaa yi ak ñi ciy durus ñëpp bés bi nag kan kan moo Euh, moo moo mooy taxawe guddi ga sëriñ Akassa Samb bii mooy troisième édition mooy ñetteelu bis bi ñett ñetteelu yoon bi sëñ bi di ko amal fii ci Mbàkke Bari kër sëñ ma Loum sëriñ bi nee na mi ngi ko yëgal képp ku naan ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadun abduhu wa rasuluhu mi ko yëgal képp koo xam ne sëriñ Tuubaa képp la yor ñor waaye képp koo xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall képp moo la ñor képp koo xam ne lu baax képp moo la ñor képp koo xam ne danga ngaa joyal sa itte yëpp sa liggéey bi yëpp jëmale ko ci bëggug borom tubaay gi de sëriñ bi nee na mu ngi la koy yëgal di ji jiital njabootuk sëriñ xaws su kan di ji di jiital wasilaam borom daaru kan ak waa Tuubaa kan gi yëpp ak waa daaru kan di ko yëgal ummatu naa Muhammad bi yëpp di ko yëgal dëkkandoo yi ak soppe yi ak am di jàmm yi ku dégg communiqué bii nag xamal ne mooy ndaw li nga xam ne moo waroon a ñëw ci yow wax la ko sëriñ bi nee na bawul kenn bawul fenn bawul ñenn mi ngi ko yëgal ñëpp wasalaamaaleykum. Ibra laa wax bii junj moo tax mooy mbootu wi cax tontul te bul jus ndax na jiw xeet ne leen ma déedéet Seex Ibra moo wéet moo yëgg moo sës.